ndawal seen news la yewoo fële ci diwaanu ndargeej àggaloon na ci gox bu nu naan loodo ñu gën koo xam ci noor askan wa fa yeewoo nag di dund tiis ak njaqare gu metti ndax di xëy di yewu ci ay ndoxi foos maanaam ndoxi égu yi nga xamante ni moo rëfule ci biir koñ bi ak li ko wër te dañu yore ay gone ak ay ndaw ak mag kenn ci ñoom amatul daanaka fenn foo teg sa tànk ngir doxi sa soxla ñu déglu woon nag ñenn ci ñoom taataan seen ay kàddu ñu xool ana lan lañ ciy indi comme ay ay jangan ki leral ngir kat ñu mëna jog ci jangoro ji nga xam ñu ngi koy dund ci lu ëpp fukki fan. Ah, waaw seen nit waaw yàlla na liggéey sax waaw sha allah daal yàlla na yalla defal jàmm. ma mhm. ngi dëkk fi ci rue Adamson. Mhm. angle nga la ndudd. Mhm. daal metti na wax dëgg yalla li tax mu metti moy ndox foos mom non seulement amul hygiène ndax lolo tax ñu wut. Euh, évacuation di ko évacuer ndax bu amoon hygiène ñu bàyyi ko ci biir kër gis nga koñ bi ni mu mel xoolal ndox mi mhm. xoolal ndox mi rek ñu wax dëgg yàlla aw ma si notion mhm. vraiment mhm. ndax euh, kuy wax it dangay ngay waxal yàlla mais da ngay dégg rek nu naan wax nan ka waa waa koñ bee ñaxtu nanu koñ bi ñaxtu nanu ñun démb seen nañ fi sax oto bi ci buntu prison bi ñu naan xëy na ñooy defar suñu jékki ñu defar bi si buntu prison bi bàyyi nu ni sunu fii yëpp amul fu nu jaar sunu xale yi macha allah xaleel kenn mënu ko garanti xëy na mag sax mën na moytu mais xale kenn mënu ko garanti foos ci boppam moom la ñu def ndaxte ngay yeewu suba di gis ndox mi sa xol sa foos yaa ngi la fuleewu di dugg suñu biir kenn xet mi ngi nuy rey dañuy cuuraay ba bëgg dee waaye xet daal mi ngi nuy rey ñoo ngi ñaan nag ñu jàppale nu amuñu doole ñi am doole mënal nu te yore dëkk bi nan nu ndax sonn nanu nag wax dëgg yàlla lii moom mënul du nawet du dara nu nekk ci force yi nan nu dimbale ngir yàlla lii daal la wala monsieur le maire dégg ñi nga xam ne daal ñooy suñu ay autorité war nu dimbali bu nu dimbalee si lii daal daal nu dimbale askan wi yëpp ñoo dëkke fii nag sunu ay jarbaat dañ ñu parce que li seq koñ bi ñaari daara daf fi nekk daara Sëñ Aadi ak daara Souleymane Mbaye boo continuer ba ci beneen rue bi mhm. daa fa fekk école MSCCR xam nga ni fii ñi fi jaar ñëpp ay tout tànk la dëgg waaw te xale yi mënoo leen téye li nday aw sumaare wax rek laay wax mhm. Mhm. sunu ay jarbaat sunu ay doom dañ fi nekk di jàng mais xet bu bon gi mënoo ko nooy waa ONAS ñoo ñoo war a ñëw lijjanti lii wala autorité yi nga xamante ne ñoo gis gis nañ ko parce que fan yi bi bi bi bi gaalu clandestin yi téere côté gox Mbaj. Hmm. Mansour Faye ànd nag ay ministre jaar na nii ba dem. Hmm. ànd ak ambulance bi ñëw bi ñu ñëwee gis nañu lii. Hmm. signalé nañ leen mais boo ba léegi ñu toog di xaar. xet bon daal kenn mënu ko ñaan daal ñun waa noor ah nan ñu gaa ngi ñëw fii suñu yoon la waaw doo wor ba ngoon di dund yi dafa metti ci xet ñoo ngi yuuxu daal ñun ñi dëkk noonu ñun ñëpp ah li rafetul daal ñoo ngi koy ñaan autorité yi ñu taxaw si dimbaleen ngir yàlla ci sabilillah ñoo ngi jooytu loolu liggéey xaalis nu mën dimbali hmm. étaanul yëgu ko ak yooyu ndax wax nañ ba sonn bi kay mënuñu si dara ndax bu fekkee kii ñoo fat ñoom ñu si dara ñu ne ñoom a yem képp rek si dara ñu ngi liggéey liggéey bu baax parce que xam nga li tubaab wax ni dem vers le peuple doo doo waxtaanul ak ñu dëkk ci euh, gox bi. dëkk bi doo doo xam. dëgg la mais bu bëgg dee ay xale la yor. doo euh, en général en général nawet la am ndox yi. tab tag ni nawet la am. Mm-hmm. mais fu nag nawet xaju ñëw. dëgg la donc lu ñu mujj de defal xamoo réseau yi xamoo defal ma xam naa moom baaxul. dëgg la ci kaw. Ah. naa rek. ndeysaan pour ci maintenir. Ah. rek la ñun fi ñu nekk nii. fii ma taxaw nii fii sunu buntu kër la mi ngi nii. nii nga ko gisee nii nii nga ko gisee nii sunu buntu kër la lii la ñuy jànkoonteel ëpp na 10 jours ñun dañu woote ba sonn amuñu benn saafara lii ku ko gis rek sa yaram war a daw bu euh. fekkee ni jullit nga rek sa yaram war a daw ci lu mel ndax lii jaaduwul dara dara dara onage woo nanu ba sonn mën ana amagunu daal saafara te ñun daal saafara la ñu bëgg saafara daal la ñu bëgg ci sunu ci sunu euh, gox bii dañu yore suñu ay njaboot dañu yore ay xale yu ndaw école Aimé Césaire baa ngi nii mhm. benn élève jaaratu fi benn oto ja gis nga oto bu gis nga ban bee ngay seen nee ma teg ne maa ko fa teg pour oto bañ nii ndax rek oto bu ndox mi dafay dugg si suñu biir kër mhm. nga war xamee ni kon lii jaaduwul ñun lu ko saafara la nu bëgg mhm. ñun waxunu lenn defuñu ci lenn lu muy ñu bëgg rek ku ñëw ci sunu gox bi saafaraal nu ko wa askan wi yewo ya ci diwan bobé nak nee nañu daanu fas andando yo xondo ba fep fu sen baat yam ngir li ni ñuy dund kat di ab calte gu sax don te du sen coobare ñu xam la ni nak daanu andando joy ko ba fep fuñ ko mënti joy ba nga xam ni nga xam ni jara fu dëkk bi wala këru kay yi jëm ci walu égu yek foos ñu gën ko xam ci ONAS ñew jog wut safara ci jangoro jile ndax kat askan wa fa nek day nee nanu fas yéene def lepp lu ci war ngir kat nguur gi wala jaraafu dëkk bii di Mansour Faye wax ci lile.